du ko defee it du wér jamono yi mu gisee deret wala mu gis dereti wasin wala dereti règle lu ci mën a doon koor ga waru ko te it bu ko defee du wér waaye nag bu fekkee jigéen ji jamono ji mi làpp daa tolloog fajar di fenk daa fajar di fenk kon koor ga war na ko kon koor ga war na ko donte bi muy muy làpp daa ànd ak fajar dañu wax ne kooka war naa war naa war naa yéene daal di woor léegi nag bu fekkee da doon sikki sàkka ndax bi mi laab ak fajar lu jiitu ndax bi mi laab ak fajar lu jiitu maanaam daal fajar ñëw na ba jàll léegi nag muy sikki sàkka ndax bi laab gi ñëw ak fajar lu ci jiitu kon dañ naan ko na continuer woor na continuer woor ginnaaw day sikki sàkka ndax laab gi am na ak fajar lu jiitu dañ naan ko na na yéene woor waaye nag da koy fay ndax lan ndax ginnaaw sikki sàkk am na rek yéene yéene amut ndax yéene daa war a nekk lu dogu ndax ginnaaw yéene ji doguwul rek dañ naan ko na yéene maanaam na continuer koor ga waaye teew day fay bis boobu ndax yéene ja nekkut yéene ju dogu loolu la ñuy wax euh, kon loolu mooy sartum ñaareel bi maanaam sart bi tax kóoru we war la ba noppi wér bi ko ñetteel nag mooy waxtu koor jot buñ ne koor farata la balaa mën a wér faw koor gi day tàmbali waaye bu tàmbalee gut boo ko defee waru la tey boo ko defee du du wér kon faw da ngay bàyyi ba waxtu wi jot bañ na weer wi feeñ na nga doog ko tàmbalee woor kon ñett yooyu mooy ñett yi nga xam ne day boole war ak wér kon loolu moo aju ci sarti koor ci ni ma ko waxee léegi ci ñetti façon yooyu ci ñetti xaaj yooyu léegi nag ñu ñëw ci jëmmi weeru koor naka lay saxe naka lañu xamee ne weer wi feeñ na koor gi tàmbali na am na ñetti mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ne koor weeru koor dana ca saxe walla weeru korite ba ci njëkk mooy ñaar ñu ma maandu ñaar ñu maandu nañ ne gis nañ weer wi ñaar ñu maandu bu ñaar ñu maandu waxee ne gis nañu weer wi kon war na ci jullit ñuy woor ndax yonente bi nee na laa tasuumu xata tarawul xilaal wala tuftiru xata tarawhu fa in xumma aleykum faqdiru la kon gis gisug ñaar ñu maandu dana waral ñu tàmbulee woor ku maandu nag bu ñu ko waxee mooy ab jullit bu nekk mu kàllaf nekk góor nekk ko xam ne day moytandiku bàkkaar yu yu maanaam daal day bàyyi bàkkaar yu mag yi tey bàyyi bàkkaar yu mag yi tey du sax ca bàkkaar yu ndaw yi kooku mooy ku màndu ab jullit lay doon nekk mukallaf nekk góor koo xam ne day moytu bàkkaar yu mag yi te bàkkaar yu ndaw ya du ca sax kon kooku lañuy ñuy wooye ku màndu léegi nag ñaar ñu maana ñooñu saa yu gisee weer wi war na ci ñoom ñu dem wax ko kilifa ak jullit ñi war na ci ñoom ñu dem wax ko kilifa ak ñi su ko defee moom moo yëgal jullit ñi ne weer wi feeñ na naka noonu it même buñ ko waxut kilifa gi waaye képp koo xam ne wax nañ ko ko rek dañuy jàpp ne kooka war naa woor ginnaaw ñoom ñaar maandu nañ te gisandoo weer wi képp koo xam ne wax nañ la ko war ngaa war ngaa woor dégg nga léegi nag ñaar ñu maanaam ñooñu nag loolu la madhab Malik wax maanaam ngirum Malik loolu lañ jàpp jàpp nañ ne weer moom gën jaaneew faw ñaar ñu maandu dañ koy gis waaye bu ko kenn ku maandu gisoon rek war sa tax ñu woor wala ñu wori waaye wax nañ na bu fekkee kilifa ak jullit ñi dafa nekk koo xam ne tënku wut ci ngirum Maalik nga xam ne mën naa am bu bu ko kenn ku maanu waxee rek moom day jàpp loola kon bu dee weeru koor la bu dee weer wu ñu war a tàmbalee woor wax nañ ne kon bu joxee ndigal ñëpp war na war nañoo woor maanaam moom kilifa gi nekkul ci ngirum Maalik nga xam ne xëy na kenn ku maanu rek mën naa tax mu woor moom su ko kenn ko màndu wu ñëwee wax ko ko te muy weeru koor kon bu joxee ndigal ñëpp a war a wor waaye kenn sëñ te ñàkk a waaye nag bu doon weeru korite moom dañ naan faw day mat ñaar ñu ndax dañu war dañuy wax ne koor li la ci dugal génne ci <clears throat> maanaam eh, nga nga woor nga woor benn fan ci weeru Shaaban moo gën a woyof nga ñàkk a woor ci weeru koor moo tax moom faw ñaar ñu maandu dañ koy gis ñu dogo wari waaye bu dee xëy na lu mel ne woor moom mën nañ faa xaw woyofal bu fekkee kilifa ga nekkut ku bokk ci ngirum Maalik bu joxee ndigal ci kenn ku maandu ñëpp mën nañoo woor naka noonu ku maandu saa yu gisee weer wi moom ci boppam daa war a woor moom même ku maandu ki donte kenn la sax donte kenn la bu gisee weer wi moom ci boppam daa war a woor ndax yonent bi daa wax ne suumoo li ru'yatihi na ngeen woor bu ngeen gisee weer te moom gis na ko ginnaaw gis na ko rek moom ci wàllu boppam daa war a woor dégg nga euh, bu ne bu dee weeru weeru korit nag moom bu ko gisee moom rek moom kenn rek su ko gisee moom kenn muy weeru korite dañu wax ne du du fësal ak ñàkk wooram mais da koy làq bu dee kenn rek moo gis weer wi ci weeru korite sëñta fësal ak ñàkk ak maanaam sëñta fësal ak ñàkk woram waaye da koy làq kon bu fekkoon ne daane ci am mbooloo li commencé fajar fenk ba jant bi so day ànd ak ñoom rek waaye du lekk donte gis na ko ci guddi gi moom rek waaye sëñta lekk ci mbooloo mi ndax lan dañuy bañ ñu tuumaal ko dañuy bañ ñu tuumaal ko moo tax day day yéene ñàkk woor waaye du lekk di ko fësal kon li ci jiitu mooy ñaar ñu maanu gis ko bi ci topp mooy mbooloo mbooloo mu baree bari mbooloo moo xam ne mooy li ñu wooye aljamaa al mustafida muy mbooloo moo xam ne dañoo bari bari goo xam ne xel mënta nangu ñuy dëppoo ci lu dul noona maanaam xel day dàq mbooloo mi kat ñu mànkoo ne weer wi feeñ na kon mbooloo mu toll noonu saa yu gisee weer wi dañu jàpp ne kon ñëpp war nañoo woor te mbooloo ma duñ ca sàkku duñ ca sart ñu nekk ñu maandu duñ ca sart ñu nekk ñu maandu naka noonu duñ sart ñu nekk ay góor mën nañoo nekk ay góor ak jigéen waaw kon daal saa yu mbooloo mu bëri gisee weer wi mbooloo moo xam ne xel nangu na ne mënuñoo dëppoo ci wax lu dul noona kon ñëpp war nañoo woor bi ko ñetteel nag mooy ñu mottali weeru Sha'ban fanweeri fan bu séentoo ñaar fukk ak juróom-ñeent gisuñu ko ñu mottali fanweeri fan xëy tàmbalee woor wala ñu mottali weeru koor fanweer daal di xëy wor yi léegi nag am na ata yoo xam ne jar naa bàyyi xel mooy koo xam ne dafa tukkee ci am réew dem ci meneen réew dañuy wax ne kooka atteem mooy réew moom nekk ku tukkee cim réew dem ci meneen réew atte bu kooka mooy réew moom nekk lay topp atteem koo xam ne dafa jóge Europe ñëw senegal te waa Europe njëkk woor waa Sénégal kon bu ñëwee day ànd ak waa Sénégal bu fekkee waa Sénégal woor nañ ñaar fukki fan ak juróom ak juróom juróom-ñeent suñ woree kon day wori ànd ak ñoom bu fekkee waa Sénégal dañoo woor fanweer te moom moo njëkk a woor kon day am fanweer ak benn waaye teewu daa war a woor ànd ak ñoom kon loolu jar naa bàyyi xel léegi na safaan bi mooy safaan bi mooy mu jóge ci réew moo xam ne dañoo yeex a woor ñëw ci réew moo xam ne ñoo njëkk a tàmbalee woor kon ba tey day topp atteb réew mooma kon ba tey day topp atteb réew moom mooy bu fekkee réew mi ñëw dañoo am fanweer rek wala ñaar fukk ak juróom-ñeent gis weer wi te moom matala gut kon day ànd ak ñoom wari day ànd ñoom wari bu noppee mu fay réew mi mu nekk saa yu ñu matalee rek te moom matala gut day ànd ak ñoom wari bu koor ga bu ko kori ga jàllee mu fay la ko la ko la ko dese woon kon noonu lay demee naka noonu it ki nga xam ne day tukki waxtu dogu jot ko mën na ci kaw jaww ji mën na ci loolu am léeg-léeg nit mën naa tukki waxtu dogu jot jot ko mën na ci kaw jaww ji di tukki kon balaa sañ a dog faw day xaar ba jant bi so ndax xëy na ki ne ci suuf moom mën naa am jant bi ci moom lañ njëkk a sowee waaye yow mi ne ci kaw di tukki li feeg yaa ngi seen jant bi sañagoo sañagoo dog ndax sunu daa wax ne thumma atimu siyaama ila layli kon li fekk guddi jot a guddi jant bi so sañagoo dog loolu it lu mat a bàyyi xel la kon loolu moo aju ci eh, yi nga xam ne ci la weer di saxe muy ñett yooyu bu ko defee ñëw ci ponki koor koor am na ay ponk yoo xam ne bu ca manki koor ga du baax loolu nag mat naa xam ba ci njëkk mooy yéene yéene nit ki ni naa yéene woor weer wi lépp yéene nag su ko defee benn yoon ci guddi gu njëkk gi doy na guddi gu njëkk gi boo ci defee benn yéene rek doy na waaye nag sopp nañ guddi gu nekk nga di ko yeesal sopp nañ guddi gu nekk nga di ko yeesal waaye boo ko defee benn yoon rek ci guddi gu njëkk gi doy na loolu nag mooy koor goo xam ne daa war nga toftale ko daa war nga toftale ko lu mel ne weeru koor koor gi yépp dañ ko war a woor kon boo ci defee benn yenn rek day yóbbaale mbooleem guddi yépp lii firndeel ne yéene farata la yonte bi sallallahu alayhi ko wax moo wax ne man lam yujmi siyaama qabla alfajri fala siyaama la waxaat ne man lam yubayyiti siyaama min al layli fala siyaama la xadis boobu bu njëkk bi abu daawud moo ko nettali ak tirmidi yi bu ñaareel bi annasaa yi kon gépp koor goo xam ne farata la dañ koo war a toftale faw boo yéenee benn yéen rek mu ambaale euh, mboolem la ca des kon mel ramadaan ak kafaara ramadaan maanaam boo dogee te tey ko ñu alamaan la ci koor boo koy boo koy fay di woor ñaari weer booy def kafaar gi di woor ñaari weer loolu boo yéenee benn yéene rek mu ambale yéene yëpp waaye nag saa yoo amee ngànt ba wóoratoo saa yoo amee ngànt ba wóoratoo kon booy wooraat dangay ngay yeesalaat yéene ji saa yoo amee ngànt moo xam ngànt loo xam ne moo koor mënuñoo ànd mel na jigéen ji gis règle walla mu gis dereti wasin ngànt loolu moo koor mënuñoo ànd kon saa yoo amee ngànt ci biir koor gi ba la jeex mu war a tàmbaliwaat daa war a yéenewaat yéene ju bees waaye yéene bu njëkk ba du doy naka noonu yëpp koo xam ne dafa am ngànt loo xam ne mën naa ànd ak koor maanaam du yàq koor ku mel ne kuy tukki kuy tukki yoon may na ko mu ñàkk woor danañ ci ñëw léegi kooku bu tukkee ba ñibbisi guddi ga njëkk war naa yeesalaat yéeneem war naa yeesalaat yéeneem yéene ju yees kon loolu it mat naa bàyyi xel kon benn ngànt la da yàq koor bu ngànt la jeexee da yeesal yéene ji da koy yeesalaat yéene ju bees wala ngànt la mën naa bañ yàqu koor lu mel ne tukki waaye bu tukkee ba ñibbisi bis guddi ga njëkk war naa yeesalaat yéeneem war naa yéene waat yéene bu yees kon bi njëkk ci farata yi wala ci ponk yi mooy yéene yéene nag mën naa bañ a doon looy wax waaye looy fas ci xel rek la ci xol jërul nga di ko wax ci sa làmmiñ waaye boo masalan bu guddi jotee nga nga nga def li ñuy wax xadd rek kon da ngaa yéene woor kon xadd xadd bi nga xadd rek mooy mooy wane ne kon da ngaa woor waaye mën naa bañ a doon loo xam ne danga koy wax ci sa làmmiñ waaye li gën nag mooy nga nga teewlu ko euh, ndax nu mu gën a sell rek ci la tuyaabay gën a bari kon loolu mooy ponk bu njëkk bi mooy yéene ponk ñaaral bi nag mooy bàyyi lépp lu yàq koor li tàmbalee jant li tàmbalee fenku fajar ba jant bi so lépp lu yàq koor yooyu nag yu bëree bëri la danañ ci ñëw benn ak benn waaye daal lépp lu yàq koor moo xam lekk la wala naan wala jaxasoo góor jigéen nga bàyyi ko bu fajar fenkee ba jant bi so loolu munta ñàkk bokk na ci li yàq koor ni ma ko waxee mooy sëy diggante góoru jigéen walla góor génne li ñuy wax mani yi mani yu walla madu yi te mu ànd ak baax bànneex ba ko baaxoo génne loolu day yàq koor génne mani yu wala madu yu te la ko génne mooy bànneex ko baaxoo génne loolu day yàq koor waaye bu fekkee dafa génne boppam rek te amul benn sabab loolu du yàq koor bu génnee boppam wala bànneex ba ko génne baaxoowu koo génne ba tey loolu du yàq koor loolu yi mat naa bàyyi xel walla sax nit ki def na bànneex waaye dara génnul ci moom loolu mën naa nekk ba tey loolu dara néewu ci wala boog xëy na def na lu gënut waaye loolu du yàq koor ginnaaw dara génnut kon lii génne li yàq koor ci wàll googu mooy mu génn ba noppi te ànd ak bànneex ba ko baaxoo génne dégg nga euh, bi ko ñetteel mooy nit ki wàccu te tay ko nit ki wàccu te tey ko ku wàccu te tay ko sa koor yàqu na waaye bu fekkee wàccu mi moo génne boppam maanaam nekkut tayeef moo génne boppam ci ak noteel kon bu fekkee dara jàllaatul ca biir ba ca buliga kon koor ga baax na bu génnee noonu génneel boppam waaye dara jàllaatut kon loola yàqut koor waaye bu ko tayee moom koram day yàqu te it am na lu ca war a topp ci kanam dina ci ñëw waaye lu mel ne ay lor wala ay xaxtandiku yooyu moom yàqut koor ak lu mu bari bari li gën a wóor ci ngirum Maalik mooy dañuy wax ne yàqut koor loolu nag xëy na da nga gis léeg-léeg koo xam ne bu wooree day tifli rek wala muy loolu daal xëy na ñàkk xam la waaye yàqut koor kon ay tiflit wala ay ay lor yàqut koor bokk mooy lépp lu am liquide lépp lu am liquide saa yu ñëwee ba ci buli gi bu ñëwee ba ci buli gi te jaare ci gémmiñ walla ci nopp walla bët wala bakkan lépp lu am liquide bu ñëwee ba ci buli gi ki wooroon na xam ne kooram yàqu na léegi nag bu fekkee amut liquide dañ naan balaa yàqu koor day dem ba ca ba ca mbàq ga waaye bu yemee ci buli gi rek kooram du yàqu bu fekkee am bu fekkee nekkul liquide waaye liquide moom bu xasee àgg ci buli gi rek donte àggul ca mbax ga dañuy jàpp ne koor gi yàqu na waaye bu dee lu am loo xam ne nekkul liquide nag moom balaa mën a yàq euh, day àgg ba ca mbax ga waaye day jaare ci gémmiñ lépp loo xam ne nekkul liquide balaa yàq koor day àgg ca mbax ga ba noppi jaaree ci gémmiñ waaye bu jaaree feneen du yàq koor ba tey bokk na ci mooy lépp lu am lu am xet lu am xet lu mel ne euh, cuuraay bu fekkee nit ki moo ko ñoddil boppam ci ay ci ay ay noam ay noyam ba mu dugg ba ca biir buli ga loolu day yàq koor bu fekkee moo ko ñoddil boppam moo ko ñoddil boppam waaye bu fekkee dafa romb rek mu dugg ko loolu moom dara newu ci waaye tiim àndub cuuraay xëcc ci cuuraay li ba mu dugg la ba àgg ba ca buli ga loolu day yàq koor naka noonu it ngay jàpp wala ngay soccoo bant bu tooy far mu rëcc jàll ba ca buli ga loolu it donte teyoo ko day yàq koor kon moo tax ku woor ñu sopp buy gàllaxndiku na ko yamale na ko na def ndànk bala muy rëcc ndax saa yu rëccee ba jàll ba ca buli ga dañuy jàpp ne kooram yàqu na kon yooyu ma wax ni mooy yi nga xam ne lu ci am rek euh, koor ga yàqu na léegi nag koo xam ne dafa dog ci weeru koor am na lu ca war a topp am na lu ca war a tegu ku dog ci weeru koor benn dañ naan fay war na ko ak alamaan mën naa nekk walla ñu ne fay rek moo ko war wala ñu ne ko dangay ngay continuer bis bi wala doo ko continuer yooyu yëpp danañ ci ñëw benn par benn bi ñu njëkk wax mooy yi waral fay ak alamaan muy kafaara am na yoo xam ne ku ko def dangay ngay fay bis ba ba noppi kafaara danañ wax kafaara mooy lan kon kafaara wala alamaan boobu li koy waral mooy nit ki tey dokkooram tey dokkooram tey ko nga xam ne ci coobareem la doge gi teyit fàttewut ak ñàkk a xam taxut moom xam na ne wooroon na mu tay ko te dog ci coobareem kooku dañ naan alamaan mooy tegu ci kawam mooy day fay bis ba ba noppi ñu alamaan ko kon bu ko bu fekkee fàttewut ñàkk xam taxut ba tey taawil li ñuy wax taawilul xarib danañ ñëw ci ci loolu mooy lan bu fekkee loolu waralu ko kon day fay ba noppi joxe alamaan am na mbir yoo xam ne ku ko def dañuy jàpp ne yaa ko tey te alamaan da cay topp bokk na ca mooy nit ki woor ba digg ba cëg mu ne bàyyi naa koor gi mooy daal yéene na woor ci guddi gi woor ba digg ba cëg mu ne léegi wooratuma loolu ku ko def dañuy jàpp ne yaa ko tey bu fekkee yaa ko def sa coobare dañuy jàpp ne kon far fay war na la fay war na la ba noppi da ngaa war a kafaara wala sax euh, ci guddi gi la wax ne man kat suba duma woor ci da ko wax ci guddi gi wéy moom nag ba fajar fenk te wóorut kon ba tey moo mu defan ko ci bëccëg bi ñooyam kon ba tey kooku dañu jàpp ne kafaara da koy war naka noonu it ku jaxasoog soxnaam góor jigéen ci bëccëgoo koor kafaara da cay topp bu fekkee seen coobare la naka noonu yit nit ki génne mani yu ni ma ko waxee woon ci ginnaaw te la ko génne mooy la ko baaxoo génne kon bu ko tayee kafaara moo cay war ak fay naka noonu it bu fekkee mani yu dafa génn ci xool ak xalaat waaye nag da ko da ko yàggal maanaam daa téye boppam di xool wala mooy xalaat ba mani yu génn loolu dañ jàpp ne ak tayeef am na ca kon faw kafaara war na ca naka noonu ki tey génne wàccu ki tey wàccu ni ki tey wàccu génne wàccoom ba tey bu ca wannaatee dara te tey ko moo tey génne wàccu mi ba noppi tey ko wannaat dara ca waccu ma kon ñaar yooyu bu dajee dañuy jàpp ne kon kooku moo ko tey dégg nga waaye nag su fekkee wàccu mi dafa delluwaate teyu ko wala fàttee ko waral kon kor ga day yàqu rek waaye kafaara du ca war waaye saa yoo xam ne moo tey wàccu mi moo tey wannaat gi kon kafaara war na ca fay war na ca naka noonu it li ñu wooyee taawil al mooy taawil bu sori taawil bu sori ku ko def dañuy jàpp ne kafaara war na la fay war na la am na ay misaal yi ñu joxe koo xam ne dafa gis weer wi dem wax ko kilifa gi kilifa ga nanguwul ay waxam mu jàpp ne sëñ ta woor mu ñàkk woor kon kooku dañu jàpp ne lam def dañ koy wooyee ta'wil al baid mooy ta'wilul baid la ndax ginnaaw gis na weer wi rek moom ci wàllu boppam waxoon naa ko léegi daa war a woor waaye bu demee wax ko kilifa gi kilifa gi nekkoo kat yow sa wax du ko jàpp kon moom daa war a woor ci wàllu boppam ndax gis na ko te dañoo waxoon ne ku gisu weer wi na nga woor suumoo li ru'yatihi te ginnaaw gis na ko rek kon bu ñàkkee woor ngir lay woowal dañ jàpp ne lay woow jubut kon daa war a kafaara dégg nga wala koo xam ne danekat tey la talaata ginnaaw suba alxames mën naa am ma feebar wala mën naa am regal bu dee jigéen mu ne mën naa am régal dikkal ma kon naa bañ a woor avant alxames xam nga kooku la muy xaar ñëwagut moo tax kooku bu ñàkkee woor te gisagut même même même loolu muy xool loolu mu yaakaar bu ñëwee dañuy jàpp ne kon daa war a kafaara kon bu nee alxames ji di ñëw daal mën naa am ma feebar kon du ma woor suba ci ba ji wala mën naa am ma gis régal ca alxames ja du ma woor kon ci àllarba ji kon dañuy jàpp ne la mu def euh, day war a kafaara donte la mu waxoon am na ndax ginnaaw ñëwagul rek kon daa war a bàyyi ba mu ñëw ba am ba noppi nag ñu doog ko xool ba xam waaye ginnaaw ñëwagut kon loolu mu des ko nangu wala koo xam ne dafa jëw dafa jëw mbokkam jullitam jàpp ne jëw ba day yàq koor mu ñàkk a woor loolu dañ jàpp ne tawilul baid lay doon ndax jëw rek dëgg na daa araam ci weeru koor ni mu araamee ci lu du weeru waaye nag yàqul koor kon ku jëw sa mbokkum jullit jàpp ne jëw ga daa tax nga ñàkk bañ a woor mu ñàkk a woor kan kafaare da koy war ak fay kon yooyu ay misaal rek ci li ñu wooyee at-ta'wil al-ba'id léegi nag kafaara mooy lan mooy am na ñett yoo xam ne lislaam da koo tëral nekk ci dog te tay ko benn ci yooyu war na ko xëy na ñaar yi rek jamono ji moo am mooy benn nga woor ñaari weer yu toftaloo wala nga jox juróom benn fukki miskiin kenn ku ne nga jox ko mudd nga jox ko liibaru ceeb wala daal lay ëpp ci la ñuy dundee xay na beneen bi mooy goreel ab jaam loolu léegi loolu léegi amatut waaye kon ñaari yi fi des mooy woor ñaari ñaari weer yu toftaloo walla jox aw ñam juróom benn fukki miskiin miskin bu nekk nga jox ko muddu léegi nag li ci gën nag mooy li ci ëpp njariñ te mooy mooy joxe aw ñam ndax xëy na koor gi yow ci ci ci yow la yam waaye boo joxe aw ñam moom day dalay jéggi dem ci ñu baree bari kon yow mi kafaara war li gën mooy nga joxe aw ñam waaye boo waree ñaari weer ba tey baax na su ko defee nag benn fan boo dog ci koor gi te tey ko dañuy jàpp ne kafaara boppam la soo dogee benn fan te tey ko ñaar ñett benn bu nekk dañuy jàpp ne ñaari weer nga ca war a woor benn fan bu nekk ak kafaar ak boppam waaye nag bu dee benn bis moom benn bis rek benn kafaara moo cay war donte da dog ñaari yoon ci bis bi te tey ko dañuy jàpp ne benn kafaara moo cay wara wala sax donte ñaari yi nga dogee bokkut dangaa naan ndox daal di lekk même bu dee ci benn bis bi la moom dañuy jàpp ne benn kafaara rek moo ci war waaye bu dee ñaari fan wala ñett jëm kaw bis bu nekk ak bisu kafaaraam te it saa yooy woor ñaari weer yooyu di kafaara saa yoo dogaatee benn fan te tey ko. la nga defoon lépp ay yàquwaat saa yooyu fay kafaara saa yooyu kafaara ci woor ñaari weer dog ca benn fante tey ko la nga wooroon lépp ay yàquwaat da ngay tàmbale waat à zéro waaye nag boo ko teyut wala njuumte xay na kon baax na waaye da ngay continuer rek ca la ca des naka doon kafaara warul koo xam ne dañ koo forcé nit kuñ forcé dogloo ko kafaara waru ko ndax dog ga nekkul ci coobareem kon kafaara waru ko kon bu góor forcé woon jigéen sa ak moom góor ga la kafaaray war ndax moom moo forcé jigéen ja waaye ñoom ñaar buñ ca àndee nag ñoom ñaar ñëpp la kafaaray war dégg nga kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy mooy waral kafaara léegi nag ñëw ci yi nga xam ne day waral fay rek am na mbir yoo xam ne bu ko nit ki defee day waral fay waaye kafaara du ca war te mooy nit ki dog te fàtte waral ko wala njuumte wala ñu forse ko dogloo ko yooyu lu ci mën a am euh, kafaara du ca war waaye fay rek moo cay war kon ki dog te fàtte bu dee ci ngirum Maalik moom dañuy jàpp ne koor ga yàqu na donte daa war a continuer bis bi waaye daa war a fay boobu bu dee ci ngirum Maalik donte yeneen borom xam yi moom dañuy jàpp ne ku dog teyoo ko sa koor baax na waaye ngirum Maalik moom dañuy wax ne ku dog teyoo ko ndax ñoom dañoo wax ne ginnaaw ki feebar euh, lislaam da ko wax ne ko sa koor boo dogee feebar tax nga dog sa koor ga yàqu na waaye da nga koy fay kon ginnaaw ku feebar mooy fay te feebar moo gën a metti kon ki fàtte commune daa war a daa war a daa war a fay kon ñoom loolu la ñu wax euh, kon bokk na ci yi nga xam ne fay fay rek moo cay war mooy ñu forcé la dogloo la wala euh, nga doon nga lax ndiku ma ko waxee woon léegi far mu rëcc jàll ba ca buliga kon ba tey fay rek moo cee wara walla wala nit ki am ngànt loo xam ne day tax koor ga du wér lu mel ne gis règle wala gis dereti wasin wala muy tukki yooyu yëpp lu ñu mën a doon bu dee ñaar yi ma njëkk a wax muy règle ak wasin moom wërta woor ndax koor ga du baax waaye nag bu jeexee da ko war a fay bu dee kuy tukki it moom yoon may na ko mu ñàkk woor waaye nag woor ga moo gën bu fekkee du metti ci moom xëy na dana ci ñëwaat ci lu gën a yaatu naka noonu bokk na ci yi nga xam ne day waral fay rek mooy lekk walla naan di sikk sàkk ndax fajar jot na walla déet maanaam bi fajar di jot yow daal wóoru la ba xam fajar jot na walla déet dangay ngay sikki sàkk nga daal di lekk walla naan kon su boobaa Euh, sikk sàkk sa mooy tax dañ naan da ngay fay bis booba ndax yéene daa war a dogu yéene daa war a dogu ginnaaw yow yaa ngi sikk sàkk rek ndax fajar jot na wala jotut nga lekk wala naan da ngaa war a fay naka noonu it booy sikk sàkk ndax jant bi sona wala suut da ngaa war a xaar ba lu wóor doog a dog waaye boo boo njëkkantee dog te amul la wóor euh, da war a fay naka noonu naa ko léegi jigéen ji nga xam ne. day sikki sàkka ndax laab gi jiitu na fajar wala déet waxoon naa ko moom it ginnaaw sikki sàkka am na rek dañuy jàpp ni yéen a ja dogu wut kon daa war a daa war a daa war a fay naka noonu it koo xam ne lekk ak naan am na am na bu ci am ñoom ñaar waaye gannaaw bi maanaam bi muy lekk wala muy naan wóor na ko ne guddi gi des na fajar jotagut mu lekk wala mu naan léegi nag gannaaw bu fajar jo jotee muy sikk sàkkawaat ndax lekk ga ak fajar ga lu jiitu maanaam li ma bëgg a wax mooy waa ji bi muy lekk wala muy naan daa jàppoon ne fajar jot na waaye amul lu ko wóor bu ko amee lu wóor moom ne fajar jotagut kon baax na waaye moom daa jàppoon daa njortoon na rek fajar jot na mu lekk wala mu naan gannaaw ba nag sikk sàkk dikkal ko moom wóor na ko ne lekk na naan na waaye nag xamut ba xam daa jiitu fajar wala fajar moo jiitu kon ñaar yooyu bokkuñ wóor na ko ne lekk wala naan na waaye gannaaw bi nag sikki sàgga diggal na ko ndax lekk gi ak naan gi moo ko fajar lu jiitu ba tey kooku dañ naan ko kon fay war na la waaye bu ko wóoree ne moom bi muy lekk wala naan fajar jotagut kon moom baax na kon yooyu mooy yi nga xam ne day waral fay bokk na ci li ñu wooye ataawilul xarib waxoon naa léegi ataawilul baid waaye ataawilul xarib mooy nit ki dafa dog waaye la tax mu dog daa jàppoon ne sañ na ko xëy na am na fu mu sukkandiku fu tax mu dog donte xëy na sukkandikuwaay ba na ko jàppee baaxut waaye daal dog na am na fu mu sukkandiku ba dog waaye nam jàppe sukkandikukaay moom moo baaxut kon wuute nag taawilul baid taawilul baid mooy mooy amul benn cëslaay lu mu sukkandiku ba dog lu bokk na ci taawilul xarib mooy koo xam ne dafa dog fàtte tax mu dog wala ñu forcé ko kooku dana ñëw léegi wax wax ne ku fàtte dog daa war a àggale li des ci bis bi wala kuñ forcé ne ko dogal bu loola jeexee daa war a àggale bis bi léegi nag bu fekkee dafa fàtte dog gannaaw ba mu continuer di lekk kooku dañ naan daa taawil taawilul xarib kon fay rek moo koy war waaye kafaara du ko war naka noonu kuñ forcé forcé ba jeex mu continuer di lekk di naan ba tey dañ dañ naan kooku dafa def taawilul xarib wala ku tukki tukki boo xam ne matut tukki bu wàññi julli tukki bu wàññi julli mooy 72 kilomètres koo xam ne dafa tukki tukki boo xam ne matut loolu mu mu mu ñàkk a woor ngir jàpp ne sañ na ko ba tey dañuy jàpp ne daa taawil taawilul xarib ba tey fay rek moo koy war waaye yi ñuy wax yépp nag mooy moom amu ci ko wóor bu ko wóoree nag lii sañu ko moom mu def ko loolu leer na waaye njortam moo ko nax njortam moo ko nax naka noonu koo xam ne dafa xëye janaa ba xëy na sangu ci bisu koor gannaaw fajar fenk na mu jàpp ne loola day yàq koor mu ñàkk woor ba tey kooku dañu jàpp ne kafaara wóoru ko waaye fay rek moo ko wara naka noonu koo xam ne waaw kon yooyu mooy yi nga xam ne ay mbir la yoo xam ne fay rek moo ca waaye waaye kafaara waru ci léegi nag am na mbir yoo xam ne dara waru ci koo xam ne dar dal na la ci weeru koor dara waru ci bokk na ca yooya mooy koo xam ne aweñ da koo sarax da koo da koo da koo da dugg aw weñ da koo dugg ba ci biiram aw weñ wala mu jaar ci yoon rek a pënd dugg ko yooyu dara néewu ci kafaara waru ci fay waru ci naka noonu it koo xam ne bi mu bàyyi lekk dafa bàyyi lekk rek ñu daal di noddu fajar kooku ba tey dañuy jàpp ne dara waru ko ndax euh, ginnaaw bi fajar di jot rek bàyyi na lekk dañu jàpp ne koram baax na dara waru ko ndax yonent bi daa wax ne kulu washrabu xata yuaddina ibnu ummi maktum fa innahu la yuaddinu xata yatlua alfajr nangeen lekk na ngeen naan ba ibnu ummi maktum noddu kon day wane ne noddu mooy wane ne koor gi tàmbali na kon nit ki sex dara ci gémmiñam dégg nodd rek mu yàbbi ko loolu dara néew ci waaye nag li gën te gën a wóor mooy nga doxale diggante bi nga bàyyi lekk ak bi ñu nodd ab distance ab espace loolu mooy li gën a wóor nga fexe ba bàyyi ab distance diggante bi ngay bàyyi lekk ak bi ñuy nodd moo gën a woor donte mën na cee sës waaye euh, li gën daal mooy mu am mu am mu espace bokk na ci nga xam ne dañ koo sib ci weeru koor mooy ki woor di mos loo xam ne dafa am cafka ku woor di mos xam ne daa am cafka bu fekkee jàllut ba ca buliga loolu dañ koo sib mel ne ki woor di mos aw ñam ba xam saf na wala safut waaye nag daa yam ca làmmiñ wa rek daa yam ca làmmiñ wa àggul ca buliga loolu dañ ko sib waaye àggut ci yàq koor naka noonu it nga jël tàndarma di ko yéeyal ab xale ngir jox ko mu lekk nga jël tàndarma yeey ko ba mokk nga yàbbi ko jox xale mu lekk loolu dañ ko sib waaye li fekk gut ci buli ga rek yàqul koor waaye li gën nag mooy bañ koo def bokk na ci it ñu sib ci weeru koor mooy mooy laal laj ko lañ laal laj ko lañ yàqut koor waaye nag li gën mooy bañ ko def yàqut koor fi mu yàqee koor rek mooy li ma waxoon ci cuuraay muy saa yoo xam ne nit ki da ko da koo xëcc ak bakkanam ba mu àgg ba ca buli ga loolu moom moo xam cuuraay la wala lañ ko lañ ñoo ci am saa yu ko xëccee ba mu àgg ba ca buli ga rek dañuy jàpp ne yàq koor waaye bu yemee ci ci bitti rek moom dañ koy sib waaye àggul ci yàq koor naka noonu bokk ci liñ sib li ñuy wax alwisaal loolu nag xam naa moom ndaw ko ndaa yi moom dañ ko dañ ko def muy woor ba ngoon nga continuer koor gi bañ a dog loolu dañ ko sib li gën mooy saa yu dog jotee rek nga dog ndax loolu dëgg la bi daana ko def waaye nag santaani wu ko moom daa waxoon ne man bokkuma ak yéen ndax sunu boroom moo may leel moo may moo may màndal kon moom daana woor ba ko ba dog jot mu continuer koor ga bañ a dog waaye kon ku moom sib nañ ci moom loolu léegi nag waxoon naa ne nit ki dog ki dog ci war koor am na lu ci war a topp muy benn kafaara ak fay wala fay rek waaye am na lu ñuy wooye al imsaak mooy jàpp àggale bis bi àggale bis bi loolu nag am na ñoo xam ne ñoom la concerné am na ñoo xam ne concerné wu leen bokk na ci ñi concerné mooy koo xam ne euh, dañ koo forcé wax naa ko léegi kuñ forcé ne ko dogal saa yu forcé ga jeexee daa war a continuer bis bi daa war a àggale bis bi koo xam ne daa dog te teyu ko daa fàtte dog daa fàtte dog bu ko fàttalikoo daa war a continuer bis ba waaye koo xam ne dafa feebaroon feebar ba wér ci bëccëg bi duñ ne ko da ngay continuer woor déedéet ginnaaw feebaroon na ci bëccëg bi feebar ba wér duñ ne ko li des ci bis bi da nga koy woor kooku mën naa continuer di lekk di naan naka noonu ki tukki woon daal di ñibbisi ci ci bëccëg bi duñ ne ko dangay ngay jàpp li des ci bis bi day déedéet mën naa continuer di lekk di naan naka noonu xale bi nekkoon gone daal di kàllafe ci bëccëg bi ba tey mën naa continuer mën naa continuer di lekk di naan kon kon imsaak ki ñu naan moom la war rek mooy koo xam ne dafa fàtte daal di dog wala ñu forcer ko forcer ba jeexee dañu wax ne war naa àggale bis ba su ko defee koo xam ne dafa tuub ci bëccëgu weeru koor sopp nañ sopp nañ ci moom rek waaye warut sopp nañ ci moom mu jàpp li des ci bis bi sopp nañ ci moom mu jàpp li ci bis bi te sopp nañ bu koor gi jeexee mu fay ko waaye àggut ci war dañ koo sopp rek kon tom bi ci topp mooy dog ci ab tukki maanaam kiy tukki kañ la saña dog kañ la sañ a ñàkka ñàkk bañ a ñàkk woor am na ay conditions yoo xam ne bu ca dajee dagan na ci nit ki mu ñàkk woor dagan na dagan na mu ñàkk a woor waaye nag waxuñ maanaam wërta woor waaye dagan na ci moom rekk waaye li gën nag mooy mu woor wa an tasuumu xayrun lakum kon sart yooyu bokk na ca tukki ba na nekk tukki bu mat doxub wàññi tukki boo xam ne mat na doxub wàññi mooy tax nit ki saña bañ a ñàkk woor naka noonu it tukki ba nekk tukki bu dagan waaye bu dee tukki bu bu xaraam nit ki sëñta ñàkk a bi ci topp mooy mooy ñetteel bi mooy bu dee ci ngirum Maalik dañuy wax ne na tàmbuli tukki bi laata fajar di jot loolu yi lu ma ta bàyyi xel la bu dee ci ngirum Maalik dañuy wax ne boo dee tukki bala ngaa saña a dog sañ a ñàkk a da ngay tàmbalee tukki ba génn dëkk bi nga nekk laata fajar di jot waaye bu la fajar fekkee ci dëkk bi moom sañoo ñàkk a woor loolu li ma ta bàyyi xel la kon ñetti condition yi mooy ñett yi nga xam ne bu dajee kuy tukki sañ nga ñàkk a woor sañ ngaa ñàkk woor bu ko defee ba tey ku feebar moom it sañ naa ñàkk bu fekkee feebar ba feebar boo xam ne moo koor mën mënuñoo ànd koo xam ne daa feebar feebar boo xam ne daal dem na ci am médecin bu wóor mu xool ko ne ko yow mii kat koor gi mënta ànd ak feebar bi kon sañ naa ñàkka woor waaye nag bu koor gi jeexee day fay waaye nag waxuñ feebar boo xam ne moom man ngaa woor téewu laa mën a woor loolu moom boobaa da ngay woor waaye boo xoolee bañ na la gat man ngaa ñàkk a woor kon sañ ngaa bañ a woor naka noonu it bokk na ci yi tax ñu maye ñàkka a woor mooy jigéen ju nàmpal wala jigéen ju toll ab diggante jigéen ju nàmpal wala ko toll ab diggante bu fekkee ragal nañ ne bu fekkee ragal nañ seen seen xale bi ki nàmpal xale bi mu ëmb wala ki ki ëmb xale xale bi mu ëmb ci biiram wala ki nàmpal xale bi mu nàmpal ragal na ne bu wooree mën naa loru kon lislaam may na ko mu ñàkk a woor bu ragalee ne xale ba mën naa loru moo xam ki ëmb wala kiy nàmpal benn ñu yaakaar ne feebar bi mën naa yokk wala moom ci boppam su wooree mën na caa am coono bu méttee métti kon lislaam may na ko mu ñàkk woor waaye nag saa yoo xam ne bu ko wooree ne su wooree moom mën na caa mën na caa doxe faatu moom boobaa suñu to woor kon day war ci moom mu mu dog kii nàmpal nag bu amee koo xam ne mën na koo fay muy nàmpal xale bi kon su boobaa day fay kooka dem woori jox kooka mu nàmpal xale bi kuy nàmpal bu amee lu mu mën a fay waaye dañuy wax ne kat la muy faye xale ba wala la muy fayee kay nàmpal bu fekkee xale bi xale bu ndaw bi am na xaalis kon dañ koy jël ci alalu xale bi loolu mën naa nekk nit mën naa faatu bàyyi fi doom doom ja am alal ca nonn ma ca nonn ma kon bu yaay ji di nàmpal doom ji di fay keneen sañ naa jël ci alal ji fay kooka bu fekkee nag xale bi amul amul xaalis amul alal kon waajur wu góoram mooy fay nàmpal ga waaye moom yaay ji waru ko waru koo fay benn ci alali xale bi wala waajuram bu góor moo koy fay su ko defee nag kii nàmpal bokkut ak ku ëmb ku ëmb moom dañ naan ko sañ ngaa ñàkkawoor a te it kenn du ca tegal dara maanaam xëy na dana fay waaye duñ ne ko dangay joxe aw ñam waaye kii nàmpal moom dañ naan ko bu condition yi dajee sañ ngaa ñàkk waaye nag da ngay joxe aw ñam da ngay joxe aw ñam kii kii kii nàmpal ndax dañu jàpp ne ki ëmb moom daa amee àttab ku feebar ndax ginnaaw waxoon nañu ku feebar moom fay rek moo ko war kon ki ëmb dañ koy jox àttab ku feebar waaye kuy nàmp wala waaye ki nàmpal moom amut àttab ku feebar nàmpal dëggal lislaam may ne nga ñàkk war bu condition yi dajee waaye nag da tegaat leneen mooy da joxe aw ñam dangay joxe lii saa yoo xam ne ñàkk nga woor ci ab bis naka noonu it mag moo xam ne daa màggat ba munta woor sopp nañ ci moom muy joxe aw ñam ku màggat ba munta woor kooku kon du woor lislaam wàccal wàccal na ko koor ga waaye nag bis bu nekk na na génne mudd joxe ko jox ko miskin yi kon loolu mooy attey koor ak la ci aju xam naa waxtu wi tënk nañu li ñu waajaloon des na waaye euh, fi ñuy jeexale rek mooy yiñ sopp wala liñ taamu ci ku woor di ko def ndax mooy tax kooram gën a mat tuyaabaam gën a bari bokk na ca yooyu mooy ku woor na maytu lépp loo xam ne amut njariñ dañoo jëlale lu xaraam wala luñ sib waaye lépp loo xam ne mënu caa jële tuyaaba ki na koy moytu kon li gën mooy ki woor waxtu wépp mu koy jeexal ci lu baax jàng alxuraan dox mbokk ak lépp lu lislaam ne lu baax la bi ko ñaareel mooy bokk na ci teg yi ni koor ak ay ngëneelam ak yi ñu sopp mooy gaaw a dog saa yoo xam ne jant bi sona saa yoo xam ne wóor na la jant bi sona nga gaaw dog su ko defee nag booy dog sopp nañ nga doge ci lu tooy lu tooy li ci gën mooy tàndarma te mu nekk lu tool benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar kon na nekk lu tool ba noppi nekk lu tooy bu fekkee amoo tàndarma nag lépp lu am suukar baax na lépp lu am sucre lu am suukar baax na mën nga koo dogooy boo amut loolu lépp nag nga naan ñetti guuxi ndox nga naan ndox nga naan guuxi ndox kon li li gën mooy lu am lu am lu am suukar soo ko amul nag nga doog jël ndox naka noonu it waaw bi ci kon bi ko ñeenteel mooy xadd xëy na li wax naa gaawa a gaaw a dog afaa ngay julli waaye nag li gën mooy nga bañ a def ni ñeen ñiy def mooy da ngay mos rek daal di dem julli ji ba noppi nag boo ñëwee àggale waaye dogu rek daal di tiim palaat bi mel ni ab mus ab buso buso loolu gënut ndax mën naa am waxtu wa euh, faat la wala boog lu bari faat la ca kon dangay ngay mos rek mos gu woyof daal dem julli ji nag boo ñëwee macha allah nga àggale comme ni ko bëggee waaye na nga maytu maytu nag la suñ ba waxoon mooy bu ngeen wooree bay dogu na ngeen bañ a topp seen seen loxo ndeyjoor mooy di lekk mel ne aw nag wuy lekk ndax koor tekkiwut ne boo dogoo da ngaa war a dabaatal la la rawoon ci bëccëg bi yépp waaye koor nit ki daa war a woyof ngir mën a gën a mën a jàmm yàlla waaye ki war ba ngoon di lekk ba biiram fees day tax tuyaabaam wàññiku kon bi ci mujj mooy mooy xadd moom it bokk na ci ngëneel li nga xam ne képp koo xam ne bëgg na koram di mat war na koy fonk xadd nag mi ngi tàmbalee ci xaaju guddi gi xaaju guddi gi ba fajar di fenk diggante boobu loo ci lekk rek te jublu ci xadd xadd lay doon waaye lu mu gën a jege fajar moo gën lu gën a jege lu mu fajar moo gën naka noonu it même bu fekkee xiifoo fekkee xiifoo sopp nañ lu mu néew neew nga guux guuxu ndox wala nga lekk benn doom tàndarma waaye xadd jot mu wóor na le waxtu wi jot na nga bàyyi ba mu weesu te defoo dara luy wane xadd nga loolu dañ ko sib kon liñ tàmm mooy Euh, su waxtu wi jotee rek nga nga jël dara mos jublu ci xadd ndax yonte bi waxoon na ne tasaxaru fa inna fi suxuri baraka na ngeen di xadd ndax xadd barke mi ngi ci ndax day dimbali nit ki mu am kàttan ci bëccëg bi sëñ bi waxoon na ne tasaxaru fa inna fi suxuri barakatan taxmi anil madxuuri na ngeen di xadd ndax xaddkat barke ngi ci boo xam ne day fekk seytaane kon sëñ Abdul Ahad xam naa kon dañuy yamale foofu rek waxtaan wi di jégalu ñàkk a nos gi ak euh, ñàkk leer gi di sant bu baax di gërëm di ñaan sunu Boroom tabaaraka wa taala mu dimbali ñu ba koor gi ñu tàmbali ñu agale ko ak jàmm te lépp luñ ñu ci def lu mu néew néew ak lu mu bari bari mu nangul ñu ko te yàqal na ko fa yàq agul di gën a ñaanal Cheikh Ahmadul Muntaxa sunu borom gën koo yàggal gën ko yokk wér di siyaare kilifa yi nga xam ne ñëw na ci jataay bi léegi buñ ciy tuddee Cheikh Ahmadou Badawi di sunu waajur ñu ngi koy siyaare bu baax di ko ñaanal moom it di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha di siyaare bu baax seen Cheikh Mountakha mi nga xam ne ñëw na ci jotaay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbacké fadilatu docteur sëriñ Cheikhouna mu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu Cheikh Mouhamadul Fadal moo ñu doon defal waxtaan wi doon ñu waxtaanal ci sawmu Ramadan ahkaamun wa adab muy bind bu mu doon. jàngale wala bu mu doon fàttali bu am solo muy weeru koor yan atte moo ci war ak yan teggin lañu war a làmboo ngir mu mën ñoo amal njariñ muy tënk ko ci tomb yu am solo yu leer wax dëgg yàlla yoo xam ne ñi ko doon seetaan jariñu nañ ci wala ñu doon déglu su fekkee ne fekkewoo jataay bi bi mu tàmbali sëriñ bi tënkal nañu tomb yi waxtaanal nañu ci bi ci njëkk mooy waxtaanal nañu ci sarti koor ak kan la war ak ban waxtu la koor di war loolu laytaay na ci lu yaatoo yaatu ci lu aju ci jeexitalu baraxlu bu ñëwee lu ñuy ci war ak bu ñu tàbbi ci koor lu ñuy war ak yu demee noonu muy lu am solo ñaareelu tomb bi waxtaan ñu ci kan kañ la koor di war wax naa ko léegi ñetteelu tomb bi indi la lu yaatu ci faratay koor ak ay sunnaam li ma ko waxee ci tàmbali bi nit ki lu muy def lu nekk bu xamul farata ya xamul sunna ya dafay mel ne jëf ja mën naa bañ a mën na ko bañ a amal njariñ kon ki doon déglu war naa xàmmee ràññee bu baax farata yi ak sunna yi mu mu bàyyi ci xel ci waxtaan wi suñu seexu naa doon def niki noonu waxtaanal nañu ci tamit lan mooy yi nga xam ne dafay yàq koor te borom bu yàqoo ci moom te mu tay ko maanaa kiy dog kooram te tay ko loolu daan bi nga xam ne lislaam da ko ciy teg muy kafaara lan mooy kafaara ak nu ñu koy defee yooyu yëpp wax dëgg yàlla indi na ci lu yaatoo yaatu ak yi nga xam ne dafa dafa yàqu kooru nit ki te teyu ko mu muy muy lu mel ne nga doon gàllaxandiku mu jàll wala yu ni demee loolu la ciy war loolu lépp leeral nañu ko te leeralin wu am solo yaatal tamit ci yàqu koor yëpp yi ci aju boo toppee waxtaan wi ci ginnaaw da ko xam incha allah yi nga xam ne sib nañ ko tamit ci koor ku woor di ko def li nga xam ne sib nañ ko ci ku woor di ko def yu ci bëri leeral na ko lu mel ne moscin ak yu ni demee ak yi nga xam ne tamit euh, bu amee lu tax kooru nit ki yàqu euh, lu mel ne kiy liggéey ci pënd puseeru yoon ak ak yu ni demee ak yaatal na ci moom it euh, yu am solo yi nga xam ne nit ki mën na koo gaar te kooram du yàqu wala yi nga xam ne su amee nit ki fekkoon na ko muy tukki dog kooram ñëw ñibbisi li nga xam ne mën naa tax mu continuer kooram te du duñ ko daan benn daan yooyu tamit ay sew sew la yu am solo yoo xam ne nit ñi dañ koy faral di laaj mooy yi nga xam ne su la dabee fekkoon nga woor euh, wala fekkoon wóoroo nga ñëw ñibbisi wala dara te du yàq ci la nga doon def dara te doo ci amuk daan loolu it lu am solo la nit ki nga xam ne tamit may nañ ko mu dog kooram te dara du ko ci war leeral na ko ci mujj muy lu mel ne kuy nàmpal wala koo xam ne dafa ëmb dafa toll fenn wala kuy tukki ak yu demee ñooñu nga xam ne am nañ sañ-sañu dog seen koor te fay rek moo leen ciy war loolu yaatal na ci bu baax a baax waaye mu tëjee ngëneeli koor yi nga xam ne sopp nañ ko ci euh, rawatina ni mu ko leeral léegi yi nga xam ne sopp nañ ko muy euh, fekk saw làmmiñ ci wax yoo xam ne jaarul yoon euh, sàmm say cër bàyyi wax yi nga xam ne du wax yu baax lu mel ne jëw ak wax yi ci aju yoo xam ne daal wax yu amul njariñ loolu lépp ku woor dañuy sopp ci moom mu def ko ndax dana tax kooram kooram sell dana tax kooram surtout li mujjee mooy xaw a moytu sa bopp ci wàllu ñam yi nga xam ne koor tamit waxtu la woo xam ne su ñëwee daf ko war a tàggat boppam ci e, di jël lu yam du caagee ne soo soo wooree ba dog rek da nga war a dabu li nga lekkutoon ci bëccëg gi lépp loolu lépp ci ngëneelu koor la bokk ak fexe ba ni mu ko waxee ci sunna yi ni mu ko leerale wane ne tamit ngëneel la muy gaaw a dog ak yeex a xadd eh, ak liñ taamu ci ku ko doge lu tooy muy muy tàndarma muy waxtaan wu am am solo woo xam ne wax dëgg yàlla bind la bu am solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom eh, gën laa defal tawfeex gën laa defal kàttan ak wér te eh, sàmm sa xam-xam ba nga gën a mën a jariñ lislaam bi barakat xaadim rasul su ko defee xam naa ne ni ñu ko waxee woon ci bi ñu tàmbali euh, Cheikh Mahamadul Muntaxa moom mi nga xam ne mooy jëwri ni borom liggéey bi mooy kilifa gi joxe ndigal ci li ñuy def lépp euh, ni ñu ko waxee woon ay ndawam ñëw nañ yabal na leen fi ki ko jiite ndaw yi mu fi yabal mooy sëriñ Ahmadul Bari Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Faadal teew na fi ànd ak sëñ Cheikh Xadim Mbàkke ak sëriñ Abo Mbàkke mu sëñ Basiiru Moor ak mbooloo mi ñu àndal ñoom ñëpp ngir teewal fi sëriñ bi xam naa danañ jox kàddu sëñ Ahmad Bari bi mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ bi suñu daaneele su ko defee tamit xam ngeen ne jataay bi saa suñ fi teewee rek dañuy fàttali dañuy fàttaliku bu baax sëriñ Moustapha mu seex ma mu sëriñ Massamba ci moo ko daa ubbi si e, di jàpp ci liggéey bi jàppin wu doy war noonu la ko ak njabootam wéyale Euh, kon ñu ngi siyaare bu baax a baax xalifa sëriñ Masamba di sëriñ mamoor Mbakke euh, di siyaare it sëriñ Ahmadou Mbakke mi ngi xam ne mooy xalifa sëriñ Moustapha yabal nañ fi délégation bu am solo bàyyi ko kër sëriñ Masamba euh, mën nañ cee ràññee sëriñ Seexuna Mbakke mu sëriñ Moustapha Masamba ak sëriñ Xaadim Mbakke mu sëriñ mamoor ak sëriñ Abdou Rassaax sëriñ Fallou sëriñ Ibrahima yi ak mbooloo mi ñu àndal ñoom ñëpp teew fi waaye tamit noonu la fàttalikoo ci jataay bi. Euh, sëriñ Mamor Mbacke mu Cheikh Mahmoudul Fadal euh, moom mi nga xam ne kenn ku ne xamoon na taxawaay bu rëy bi nga xam ne amoon na ko ci liggéeyal lislaam rawatina alquran waaye mu amoon ko ci taxawaay bi ci liggéey bi ñuy liggéey fii ci jumaa ji daa fi teew teewal jëmmi sëriñ bi di fi teewal boppam di jàpp ci liggéey bi jàppin wu am solo moom it ki noonu waxtu wi bu jotee dañ koy fàttaliku moo tax Euh, doomam mi ngi nii di xalifaam sëriñ mustafa moom sëriñ Mamor teew fi ànd ak ay rakkam euh, moom it ñi ngi koy euh, ak ñi nga xam ne Serigne Mamor daana baaxoo ànd ak ñoom ko mel ne Serigne Cheikhouna Sall Serigne Elimane Gaye ñoom ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di leen gërëm niki noonu tamit daaira xidmatul xadim Serigne Modou Diop moo ko jiite ñoom it teew nañ ci jataay bi ak délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko asaabul janna daaira asaabul janna bi nga xam ne ñooy buub jumaa ja Euh, te bàyyi sëriñ Bousso bi Bousso sunu bàyyi sosoon ko moom it teew na fi sëriñ Bassirou Bousso moo moo jiite délégation bi mu ngi teew su ko defee bala ñoo jox kàddu gi sëriñ bi ñu fàttali ne euh, suba ak jàmm incha allah euh, xam naa yow mi yor jadwal bi am na ak soppiku ndax tarbiyatu ruux yaa inda Cheikh al Xadim la ñu waroon a waxtaane waaye incha allah suba waxtaanu sëriñ Maamun Mbàkke mu Seex Ahmadul Faadal mooy mooy mooy mooy ñëw muy waxtaane al mursidi rabbaani muwaasifatuhu wa makaanatuhu maanaam sëriñ Maamun mu Seex Ahmadul Faadal moo koy waxtaane mi ngi waroon a am ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent maanaam melokaanu kilifa ak diine ak wàcc waayam moom la sëriñ Maamun mu Seex dul Faadal di waxtaane suba incha allah bu juróomi waxtu tegee fanweeri minute kon dañuy jébbal kàddu gi rek euh, sëriñ ahmadul badawi mbàkke mu cheikh ahmadul faadal mu indi kàddu yi bàyyikoo ci sëriñ bi cheikh mahmadul muntaxa kon sëriñ bismillah su ko defee ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne it ñooy topp waxtaan wi e, képp ko xam ne rek am nga laaju diine boo xam ne bëgg nga koo laaj mën nga koo yónnee whatsapp wala nga wootee ci numéro bi di 78 689 28 28 78 689 28 28 mën nga ko ci yónnee bu ko defee bu soob yàlla euh, sunu mufti yi ñi nga xam ne ñooy euh, def fatawaa yi danañ ko tontu 78 689 28 28 boo ci yónnee message whatsapp wala nga woote ci rek danañ jot sab laaj sëriñ bisimilah. auzubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ngi yëkkati kàddu ci sëriñ Mouhamadou Xabbaan moom Cheikh nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal mu teewal ko ci liggéey bi yàlla dogal ngànt dab ko mu wax ne nañu ñëw teewal ko fi indi ndigal ak kàddu sëriñ bi nu ànd ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak sëriñ Abo Mbàkke ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi wax ne nañ ñëw indi kàddu googu sëriñ Mouhamadou Xabaan wax ne nañ ñëw indi kàddu sëriñ bi mu doon kàddu cant kàddu ngërëm kàddu rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ne mooy am fii ci jumaa ju mag ji di am ci weeru koor muy weer woo xam ne mooy weeru borom bi subhaanahu wa di weeru yonent bi sallallahu alayhi wa di weeru cheikhuna alxadim radiallahu anhu di weeru jullit yépp mu doon weeru alquranul karim doon weer woo xam ne nii ngeen koy dundale noonu la baaxe wax nañ ne ku baax ki bu weer wi daan jublu si ñëpp dañ koy ràññee ci moom biir weer wi ñëpp dañuy xam ne weeram ñëw na nu bàyyi ko léegi ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom itam fii ci kër gu mag gi ci jataayu ruuxaaniya bu am solo boobu yi nga xam ne moom lay def ñu di ko ñaan mu ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën ko def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom sëriñ bi ne na ñëw kon indi kàddu cant yooyu teg ko ci loxol muqaddamatul xidma mu doon mbooloo moo xam ne ñoo am tawfiixi sëriñ bi jagleel leen liggéey bu réy bii muy di toppatoo jumaa ju mag ji nga xam ne nag mooy jublukaayu murid yëpp mooy seen yaakaar doon jumaa joo xam ne ki fi nekk léppam sallallahu alayhi wa sallam la woon léppam lislaam la woon muy cheikhuna alxadim radiallahu anhu waaye weeru koor ni ma ko waxee sànq ràññi ko woon lool ci nu ko sëriñ bi fonke woon dégg nañ xasaayid yu bari yi nga xam ne def na ko ngir teeroo ko weeru koor yaa xayra fin waaye bu ma di ko ma wax niñ ciy dundale weeru koor daan ko dundale noonu ànd ko njaboot gi waaye bu ñu demee ba weer wi mel ne luy tàggoo day mel ne bëggut weer wi dem bëggut gan gi tàggoo ñu gis moom itam xasaayit yooyu nga xam ne def na ko ngir di ko màggale di ko terale ganam gu màgg googu yi ñu koy dundal fii nag ci lii nga xam ne moom la Serigne naa Mbacké doon def léegi muy waxtaane xam-xam tomb yu bari yu fasanti ko waaye bii mu doon def tey dafa mel ni moom mënta ñàkk rawatina nag bi mu ko ubbee ci weeru koor ndax nit lu muy def da ko war a xam te defe naa ne bu ñu ko dégloo bu baax a baax li ñu mënt ñàkk a xam ci weer bi yépp macha allah indi na ko jërëjëf yàlla na yàlla fay yàlla barkeel la waaye sëriñ xabaan ne nañ jot li wala nañ fàttali kàddu cant yoo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha da koo jëme ci njabootuk Serigne Moustapha moom ma sàmba ndax Serigne Abdoul Ahad wax na ko léegi muy taxawaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne amoon na ko ci bis bii waaye alhamdulilah waa Muxaddamatul ma ñoom itam wéyal kóllëre googee waaye sof njaboot gi mu fi bàyyi itam yokk taxawaay boobee nga xam ne moom la sëriñ bi doon taxawee ñu di ko ñaanal sunu borom yokk ay leeram waaye di siyaare rakkam ju baax ji sëriñ Maam Mor moom Cheikh Massamba di ko ñaanal mu yàgg fi lool ak wér moo njabootu Cheikh Massamba gépp di jagleelu bi nuyoo itam sëriñ Ahmadou Mbakke moom Cheikh Moustapha moom sëriñ Massamba bu naka noonu nag ci la ñuy ñëwee ci sëriñ Maam Mor moom Cheikh Mahamadul Fadil nga xam ne moom it moo amoon ndigalul di taxawee jataay bii ndax Cheikh Mahamadul Moustapha wax nañ ne bi mu ko taxawalee ab diir dafa wax Cheikh Mahamadul Muntaqa ne ko liggéey bàngoog yi dama bëgg sama njaboot ñëw di ko ànd ak yow kon loola moo waral Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha ci boppam jox ndigal sëriñ Mamor moom Cheikh Mouhamadul Fadil muy taxawe bis bii ñu di ko fàttaliku di ko ñaanal moom it sunu borom yokk leeram di nuyu Cheikh Moustapha ak njaboot gi mu àndal di leen di leen di di di fàttaliku ci ñoom kooku nga xam ne jëmm la boo xam ne kenn la woon kenn ku nekk amoon nga ci moom cër boo xam ne da ngay jàpp ne moom rek yow rek la ko jagleeloon naka noonu mboolem ñi nga xam ne ñoom ngeen daan àndal liggéey bi sëriñ Mouhamadul Xabaan mi nga xam ne moo am ndigalul taxawee lépp lu aju ci daare alxuraan yi ci dëkk bi muy cër boobu nga xam ne moom la sëriñ bi ndigal loolu sëriñ Mamoor yoroon ñu di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ko wér bis bi ñor ko lool yitteel ko ngante ko dab mu wax ne nañ ñëw donte lott nañ ci néew nañ ci doole ñu ñëw indi ndigal loolu nga xam ne moo jógee ci Cheikh Mahamadul Muntaqa ànd kook Serigne Cheikh ni ma ko waxee léegi ak Serigne Abo ak njaboot gi nga xam ne Serigne bi yebal nañ leen fi di leen ñaan ñaanal sunu borom gën leen a gàttandu gën leen a jàppale gën leen dëgëral ba liggéey ba rafet bii nga xam ne yéen ngi koy def waaye di ko defee fii nga xam ne nag fi lay gën a yelle mu yàgg lool te sax te yokk te ànd ak jàmm te gën a jàpp jàppandi waaye ni ngeen di dundale weeru koor wi ci ndogu yi ku ne xam na ne loolu sallallahu alayhi wa sallam lim ci wax ñun ñëpp xam nañ ko iftaaru saa'im loolu lu lu am solo la waaye di ko dundal ci xam-xam di fi jàng alquran ji nga karim ji nga xam ne mooy moo moo mooy alali sëriñ bi mooy ab cëram waaye mooy nag li nga xam ne mooy chahru ramadan allazi unzila fihi alquran kon nii ñu koy defee ci jataay bi sëriñ bi nee na xolam sedd na mu ngi leen kii sant di leen gërëm ku ne xam ne diggaw Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak Muqaddamatul Xidma ku ne xam na ko lam daan wax rek lay wax lam daan soññee lay soññee moom ci boppam sax bu kàttan gi mayoon mooy ñëwal boppam fii waaye gis nañ ne mi ngi jógee léegi ci kër gu mag gi te booba itam mi ngi jokkook yéen di ànd ak yéen jataay bi nga xam ne moo nekk fii di ñaan suñu borom gën ñoo tawfiixal gën ñoo dëgëral fayal ñu Seexunal Xadim radiyallahu anhu te def ñu dëgg dëgg taalibe yoo xam ne dañuy topp ci yoonam wii nga xam ne moom la xalloon te mooy rek yoon wi sallallahu alayhi wa sallam indi woon dara raxu ko dara kooju ko yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg taalibe sëriñ Tuubaa te fayal ñu Seexuna al Xadiim fayal lu njabootam gi te barkeel te jàppale dimbale mboolem murid yi bayit woowu sëriñ bi daan wax yaa rabbi jaalil muridina maa fii xisnika al xasini wa chamlaj maa yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ bi kàddu yi am na solo lool euh, ñu ngi lay ñaanal bu baax yow it defal la tawféex ak taysiir di sant bu baax sëriñ Mouhamadul Xabbaan Mbàkke mu Cheikh Abdoul Fadal moom it ko ñaanal eh, gudd fan ak wér waaye di sant kilifa yi fi teew yëpp su ko defee kon eh, incha allah ñu fàttali leen rek ne kon jataayu suba bi bu juróomi waxtu tegalee fanweeri minute sëriñ Mouhamadul Maamun mu Cheikh Mouhamadul Fadal mooy ñëw def waxtaan wi mi ngi ñuy waxtaanal ci melo eh, melokaanu kilifa diine ak wàccuwaayam. kon ñu ngi sant bokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñoom ñëpp di sant mbokk yi ñuy topp ci MKTV GMT ak site internet yi nga xam ne ñu ngi koy jël yëpp ak Lampfal télévision ak rajo yi yi nga xam ne ñooy jël waxtaan yëpp ak fu ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 yaa xayra dayfin ataa